je disais. Donc, dans la prévention avec les mesures barrières, on fait référence à la distanciation physique, n'est-ce pas, aux mesures hygiéno-diététiques avec le lavage des mains, mais surtout avec le port du masque. Euh, je ne serai pas long, mais juste un message pour dire qu'avec ce don qu'on a reçu, je voudrais juste vraiment me pesantir sur un élément. qui me semble très important et qui demeure être la sensibilisation des populations et plus particulièrement des jeunes. Parce que vous savez que la jeunesse, c'est une population qui est mobile. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand nous parlons des cas graves, le plus souvent, en tout cas avec les leçons qui ont été apprises, c'est surtout des personnes âgées ou bien celles qui sont porteuses de comorbidités qui sont surtout affectées par ces cas graves. Et vous savez que si nous prenons l'exemple des personnes âgées, le plus souvent, elles ne bougent pas, elles restent à domicile. Mais c'est cette jeunesse, cette population qui est très active et qui est très mobile, qui bouge et qui peut revenir à la maison pour ramener le virus. Donc je pense d'où l'importance d'insister sur la sensibilisation par rapport, n'est-ce pas, à l'importance du port du masque et du respect aussi des autres mesures barrières. Vraiment, wala euh, geste bi nga xam ne euh, tey ñi nga xam ne ñoom ñooy waa COJER au niveau national ak seen représentant monsieur Sow ak délégation bu mu àndal yëpp euh, ak waa comité de santé le médecin chef de la région ak les population de la Médina et surtout commune Médina ñi nga xam ne nii gis nañ ne donc waa mairie ñëw nañu gis nañ ne le ministre Seydou Gueye bi nga xam ne waa Médina la dafa ñëw délégué kenn ñëw pour fekkee geste bi ñu ngi leen di remercier alors kii dañ koy rafetlu parce que tout simplement euh, gis nañ ne mbas mi yemul kër docteur rek et bu ñu bëggee tey vraiment limiter li nga xam ne moom mooy feebar bi nu muy lawee euh, dafa am solo secteur bu nekk dugal ci loxoom et te tey particulièrement gis nañ ne COJER ñëw na donc gàcce ngàllaama waa COJER waa secteur de la jeunesse euh, parce que lu am solo mooy ne bu weesoo faj bi bu weesoo dépisté kaay yi dafa am loo xam ne dañ ciy insister mooy ñaax askan bi askan bi nag pourquoi ñuy insister ci ñaax leen encore davantage parce que tout simplement bu ñu jëlee exemple ci li nga xam ne moom mooy cas grave yi gis nañ ne euh, boo xoolee Euh, mag yi lay gën a dal euh, bu dul ñoom wala ñi nga xam ne dañu ame yenn feebar yi te boo xoolee population bi nga xam ne dañu jeune mooy maanaam waxambaane yi les jeunes dañu mobile te boo xoolee mag yooyu ma cité léegi ñu si bari du ñu bouger donc ça veut dire que population bi nga xam ne dañu mobile di dem di ñëw suñuy génn ñooñu ñooy yóbbuwaat feebar bi ci kër yi donc raison pour laquelle ñuy insister beaucoup rafetlu nañ geste bi c'est important mais gis naa ne dañu intégrer en plus de ce geste dañ ci intégrer benn activité sensibilisation sensibilisation bi boobu nag dañ ci war a gën a euh, poussaat appuyer surtout pour ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi pour ñu mën respecter toutes les mesures yu ñu édictées de prévention mais particulièrement li nga xam ne moom mooy pooru masque bi. ce qui nous anime aujourd'hui ce qui nous préoccupe justement, c'est de vulgariser les actions du président de la République. Tout autre débat ne nous intéresse pas. Parce que n'oubliez pas qu'en 2016, on a vécu un référendum. Un référendum qui donne le droit euh, aux populations, qui donne justement le droit euh, de, de, de, de, nos ressources naturelles qu'on laisse entièrement aux populations et, au niveau des, des collectivités territoriales. Donc, euh, À ce titre, nous voulons vous dire que nous sommes très fiers du président de la République et nous l'encourageons parce qu'il a fait beaucoup d'efforts en ce sens. kon fii ci Médina pour profito ci 23 juin bi nga xamante ne peuple bi moo jógoon particulièrement la jeunesse pour dire non au tripatouillage de notre constitution cette fois-ci aussi dañoo jóg le 23 juin tey pour dire aujourd'hui que Covid bi nga xamante ne moo ngi suñu biir réew dañoo war a laxasaayu jóg taxaw bu baax mobiliser wu autour de la lutte contre cette pandémie autour de la lutte contre ce virus bu génnee suñu dëkk dëkk ba noppi ñu doog nag wax leneen parce que énergie yëpp comme ni ma ko waxee ci tubaab énergie yëpp la ñu war a boole jeunesse bi yëpp la ñu war a boole ñu tegee fële politique bi pour que ñu xeex lii di nga xam ne mooy mbas mi damay féliciter nag autorités yi ma fekk parce que fekk naa ne ñoo ngi ci liggéey bu am a am solo les autorités sanitaires que je remercie parce que elles nous ont montré toute leur disponibilité les autorités politiques religieuses donc ñoom ñëpp en tout cas wane nañ seen féddale wane nañ seen ànd ak li nga xamante ne ñoo ngi koy def encore une fois ce n'est pas de la politique mais nous avons senti aujourd'hui la nécessité d'être à côté de la population dañoo taxaw temm pour que nekk côté population yi dañoo wàcc ci mbedd mi joxe li nga xamante ne mooy produit antiseptique au district sanitaire sud mais également wàcc ci mbedd mi pour joxe ay masque ñi nga xam ne takkuñu ay masque ñu jox leen ko pour que ñu inciter leen pour que ñu wax leen ne geste barrière yi tant que respecté wuñ ko feebar bi du du gaaw a génn suñu dëkk loolu moo tax tey ñu jóg choisir nag district sud bi nga xamante ne fii la nekk ci Médina parce que dem nañ fële ca district bu nord dem ca district bu ouest tey nag district sud lañ choisir pour ñu ñëw fii pour ne population bi ñoo ngi à à ses côtés ñu góorgóorlu bu baax ci li nga xamante ne mooy mooy geste barrière yi góorgóorlu bu baax ci li nga xamante ne mooy xeexu mbas mi. ñun de ay ndaw lañ yëkkati woon nañ suñu baat ne vraiment ñun li ñu soxal mooy ñu am ay consensus fort ci mbirum littoral ci mbirum foncier ci lépp ñun nag vraiment dañ ciy féliciter le président de la République di ko encourager. parce que li ngeen fi dégg suñu euh, quelques quelques jours derrière nous yëpp c'est antérieur à la présidence di de de de Macky Sall donc li ñuy ñaan mooy ñu toog waxtaan def ay jataay yu yaatoo yaatu pour am ay consensus fort autour du littoral autour du foncier. liñ fi indi mooy ay gants liñ fi indi mooy ay masques jagleel ko district sud ki nga xamante ne mooy médecin chef euh, monsieur Ndour ma peggoog moom fii. moom moo ko réceptionné pour ne ñun itam lii mooy suñu participation ci xeex mi lii mooy suñu participation justement ci ci ci effort de guerre yi nga xamante ne président de la république boo léegi moo ngi koy def ne naa la sànq président euh, moom mooy euh, le le général moom moo tracé la voie donc ñun du ñu def lu dul topp ci li nga xamante ne voie boobu la tracé muy ñu nekk à côté des populations soutenir leen jàppale leen sensibiliser leen mais également ci li ñu yor ñu yëkkati jox leen ko comme ay produits antiseptiques yi ma fi wax sànq comme ay masques comme ay gants jagleel ko district sanitaire bu sud.